asalaamaaleykum chers internautes de Sénégal ñu ngi fii euh, ci King Fahd Palace ci euh, gala des cent entreprises les plus euh, dynamiques d'Afrique donc nag ñu fekk fii koo xam ne ne hmm, suñu star la macha allah Oumy Gueye ñu gën ko xam ci OMG Oumy ñu ngi lay nuyu bu baax. fay naa la bu baax a baax mi Mina. kontaan naa si gis la mbaa xeeboo sa sañse li nga sañse macha allah. ah xeebu ma ko moom waaw kontaan nga rek. kontaan naa kontaan naa bu baax merci beaucoup Babel. ana ah mu ngi si jàmm bu baax. waaw waaw mi ngi si jàmm bu baax a baax alhamdulilah. alhamdulilah euh, ñu gis la tey nga ñëw ci événement bi ñu bëggoon xam ndax da am da nga yow sa entreprise boo xam ne ne dañ ko nominé wala da nga ñëw pour prester da nga ñëw juste pour li nga xam ne ne euh, dañ la invité. waaw Mina en fait boo gisee tey ma teew euh, ci aussi nii mooy que ne dama nekk ambassadrice su Ferme Factory Ferme Factory bokk ci entreprise yi nga xamante ne dañ leen nominé donc les 300 entreprises. entreprises les plus dynamiques cette année ñu nominé leen donc loolu moo waral sama waay tey ma ñëw pour représenter leen voilà donc euh, nan nga gisee déjà ambiance bi léegi mu commencé nan nga gisee toogaay bi ak yooyu nan nga apprécier déjà événement bi waaw déjà je trouve que organisation bi jaar na yoon donc soirée bi commencé na mi ngi neex bu baax a baax et ñi ngi xaar également aussi di ñaan Ferme Factory gagner trophée waaw <laughs> ñu ngi si mois d' hmm, bu ñu ñëwee tey di wax ak yow mënuñu wax te waxuñu ci li nga xam ne ne moom mooy cancer du sein ak cancer de l'utérus donc lan nga ñu mën a wax ci euh, octobre rose. waaw octobre rose nag euh, su ma si wax je pense que ne euh, wax ji du du mën a day gën a gudd mais dama koy tënk rek tu vois parce que nekk na loo xamante ne chaque année ñu ngi siy wax chaque année on se bat on pour que jigéen ñi mën a gën a am information par rapport ak cancer du sein parce que xamante ne mi ngi rey jigéen ñi et euh, en silence tu vois donc tey jii ñun en tant que artiste ñi ngi siy tout le temps chaque année on fait des di vidéo sensibilisation di ci wax ak ñoom di wax ñi dem di dépister wu ji man chaque année damay dem dépister wu parce que c'est important je suis une femme et di leen informer di leen wax si ñu continuer di dépister wu di xool et di faju également ñu rapproché wu de la LISCA LISCA bi nga xamante ne moi je suis partenaire avec la LISCA yàgg naa leen soutenir ci seeni combat donc ñu rapproché de ñoom pour am la bonne baax a baax sensibilisation bi parce que soxla nañ ko. nga génne woon fi album macha allah Euh, def def euh, benn euh, séance d'écoute bu bu bu am doole mais après gisuñu li nga xam ne ne moom mooy communication bi war a topp album bi lan moo waraloon loolu. waaw déjà je pense que après album bi décès bi amoon daf ma jàppoon trop donc moo waraloon après me replier wu sur moi-même jël benn temps de repos boo xamante ne soxla woon naa ko pour man et également j'étais en état de grossesse donc ma am benen bébé boo xamante ne nii bu donc on va dire ça et il me fallait reposer noppaluwaat mën a renouveler wu waat en tant qu'artiste toog xalaat également si lu bees donc loolu moo waraloon temps d'arrêt boobu noonu mais ñi ngi ñi ngi ñëwaat bon génne nañ benn vidéo y a pas longtemps et également en décembre dinañ génn benn projet incha allah. incha allah dañ koy jeexale rek ak actualité hip hop ku la xam xam ne ne euh, woykat nga macha allah te yemoo fen ku ñu wax ne gañ nga hip hop Galsen Awards trois fois. donc nekkatoo ku ndaw si dëkk bi tey ñu gis clash bi entre Ngaaka Blindé ak Akhlou Brick nan nga gisee déjà euh, clash boobu ak nan nga gisee contexte bi ñu toll nii. waaw damay wax rek ne clash xam nga mun mënuñu ko bañ parce que si hip hop la bokk donc euh, dañ koy def mais nañ ko defee nu mu gën a nice xam nga mën nañ clashante mën nañ ko def game bi mu neex sans pour mu am euh, ñu dépassé ñu dépassé yenn limites yi parce que tamit nit ki booy def ngay liggéey da ngay prendre en compte un peu bi nga nekk te nekk nañ Sénégal xamante ne dëkku valeur la dëkku worma la dëkk woddu yenn kàddu yi donc nañ faral di bàyyi xel loolu bu baax a baax en tant que acteur du hip hop et xam ne tamit am na ay xale yu ñuy déglu ay mag yu ñuy déglu euh, ñu koy bàyyi xel bu baax a baax donc ñu géem ko ñu clash ko mais ñu def ko mu nice ñu def ko tamit mu mu am limite daal waaw. génne nga lu nice dama ko fàtte génne nga lu nice temps yi macha allah ak gars yi di ko coow euh, est ce que préparé nga pour def si communication même bu nekkee sax benn single wala benn benn vidéo est ce que préparé nga aussi ay show wala dara pour sa fan si la xam ne aussi dañ la namoon. waaw bien sûr instant bii nii maa ngi ci promo euh, single bi nga xamante ne génn na mais également ñu ngi waajal ay concert parce que maa ngi liggéey ak benn live band donc 26 euh, le 25 war nañ dem Paris aussi pour benn festival boo xamante ne Africolor la ñu ngi waajal aussi ay concert ici à Dakar pour fans yi nga xamante ne ñu ngi ñuy xaar yàgg na waaw. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal kontaan nañ. merci à toi.